ñi am lu ñu tënkoon ci wàllu autorité bi ñu xamal la ne lépp loo xam ne tënkoon nañ ko nga noon ñi insha allah danaa leen ko wax ñoom ñëpp kenn ku ci nekk teew na li ko dalee ci brigade gendarmerie bu Sokone commandant ñu lay gërëm bu baax yebal na fi ay ndawam ci suba suba teel ba léegi gis nañ ko ci délégation bi lu mel ni lu mel ni autorités yi nga xam ne ñoo fi ñëwoon di pompe dëkk bi yegsi nañ fi dippi alxemes ñëw nañ pompe nañ ñi nga xam ne nii ñooy commandant sapeur pompier yebal na fi ay ndawam ñëw nañ ci suba kon ñu ngi leen ay dalal di leen gërëm bu baax ñi ngi dalal suñuy mbokk yoo xam ne mën naa wax ne mbokki deret lañ muy waa dagg sànqaay ñu ngi dalal suñu mbokk yi nga xam ne mooy mbokki mbusew bi yi nga xam ne bàyyee ko nañ Tuubaa ñu ngi leen ay dalal bu baax di dalal waa daayira Nayrul Maram ñoom itam ñu ngi leen ay dalal bu baax di leen sant di leen gërëm ndax bi ñu jàppee bis bi ba léegi bépp yëngu buñ topp ñoog ñoom lañ mosu ñooy toog mosuñu ñooy noppalew soxna ye ca waañ wa di daayira maam jaara ñu ngi leen ay sant bu baax di leen gërëm ñi nga xam ne tey ñooy ndaw yi ci dëkk bi da daayira bi ci dëkk bi ñii nekk ci dëkk bi ñii nekk ndakaaru wala ci yeneen gox yi gën a fasante ko ñoom itam ñu ngi leen ay dalal bu baax di leen gërëm honorable député di Pape Dianko sa ndaw yegsi na fi ñëw na fi démb ca ngoon kontaan nañ bu baax gërëm nañ le conseil départemental de Moustapha Mbaye sa ndaw yegsi na fi dippi alxemes ñu kontaan bu baax di gërëm ndax bi ñu sosee bis bi ba léegi ñoo ko yow la autorité boole wuñ ne ak yow mbokku deret moo ñu boole ak yow ak mbokku taalibe kon xam nañ fi ñu toll ñi ngee kontaan bu baax tey gërëm su ko defee li ci des ñi fàtte ko wala ñi am ci njuum te ñu koy bàyyee baabakar Diop su ñëwee dana ko mottale ñu wax tuuti di dénk ci kàddu dénkaane ci dëkk bi muy monsieur le maire ñu ngi lay dalal ak jàmm di la ñaanal sab yan yàlla na ko yàlla woyofal dëkk bi nag ñëw nga fi fekk soxla yu tar waaye dañ ciy jukki tuuti rek pour bàttale la ko pour nga bàyyi xel dëkk bi gannaaw ñun la ñuy wax ñun yow lañu am yow yaay yóbbu suñ doléance ci kaw kon ñu wax ci tuuti rek nga yóbbul ñu ko ñu wax ko ci say kanam kanami kalifa ñi xam ne Touba moo jàmbal lii moo soxla lii boo leen ko waxee danañ ko mën a dëggal lu mel ni yoon soxla nañ ko bu baax bëgg nañ ko ñu ci jàppale bu dee yoon itam mu nekk yoon wu ñuul honorable député loolu moom loolu teg naa ko ci sa loxo nga yóbbu ko ensemble bugg nañ yoonu ñuul kuk ndax dëkk bii mooy yaakaaru ñombaatu tey comme moo yaakaaru ñombaatu nag bugg nañ lépp lu ngeen ci man ngeen jàppale ñu ci monsieur le maire lu mel ni station yokk courant soxla nañ ko ci dëkk bi ndax ñi nga village boo xam ne tey maanaam omo ci dëkk bi courant yeggu fa ba léegi muy kër Bondial dëkk bi am na ñu fii dund ba léegi jotuñ courant te ñu ngi ci biir dëkk bi kon bugg nañ yaatal ba ñëpp kenn ku ci nekk jot la da sa wàll ndax courant dafa bokk ci dundab doomu aadama ñu ngi la koy sas nga jàppale ñu ci loolu ndax xam nañ ne am na lu mairie man am na lu manut waaye mairie lam tële day nekk soxlaam mu gàdd ko dem ca ña ko man mu wax ca ak ñoom ñu bokk ñaan yàlla dimbale ñu ci loola kon loolu soxla la ci dëkk bi boo xam ne soxla nañ ko lool bugg na ñu cëm ku ci jàpp bu baax en daal ñu ngi dalal gan ñëpp ñu ngi siyaare ñëpp fu ci waay nekk gis nañ gërëm nañ sant nañ kon wa tabaarakallah bis bi rafet na te yéen a ko taaral ñu ngi wax jërë ngeen jëf sëñ Fallou nag ñëwul waaye yebal na rakam kon tey ñun moo fi suñ sëñ Touba ndax jotaaye murit bu fa benn mbàkke mbàkke teewee kenn doonu tut kalifa ga moom mooy kalifa gi kon nag njaboot gaa doom yaa ngi soxna yaa ngi dëkk baa ngi commune baa ngi arrondissement baa ngi département baa ngi nga ñaan yàlla wàcce fi jàmm ak tawféex ak xéwal te tàggat nag ba ñu ñëpp ñu tegu ci njub ndax kat bu ñu jubee noppal kilifa yi kon mu ngi noonu sëñ bi ñaanal ñaanal mag ñi ñu yàgg fi lool te ànd ak wér xale yi yàlla ubbi leen mooy leen alal ju bari te barke ñoom itam ñu mën a def ci dëkk bi en tout cas kontaan nañ bu baax suñ xol sedd na ndax ku gis lii ay ndaw taxawal ko ay mag nekk ci seen gannaaw di leen ñaanal loolu tawfeex la dëkk bi nag monsieur le maire mu bugg nañ daal ku xormaal dëkk bi ndax dëkkab sëñ Tuubaa la te xam naa ne ku ci góorgóorlu xormaal ko yàlla mën na laay xormaal te ku ko xormaal sëñ Tuubaa nga xormaal wasalaamualeykum wa rahmatullah xam ne yaa ngi yeewoo ci dëkk bu sell bii et di nuyool le sous-préfet de l'arrondissement de Toubacouta ak délégation bu mu àndal di nuyoo l'honorable député maire de Toubacouta ak délégation bu mu àndal di nuyoo le représentant du conseil départemental Moustapha Mbaye ak délégation bu mu àndal di nuyoo le maire de la commune de Nioro Alassane santal ak l'ensemble de son équipe municipale bu mu àndal di nuyoo les corps militaires ak paramilitaires yi fi teew ba ca croix rouge ñu ngi leen di nuyu di leen di sant di leen di gërëm te di leen di wax dal leen ak jàmm ci dëkk sëñ Maam bi mbokk yi fan yii nii mën naa wax ci weer bi ñu nekk nii ay xew yu mel nii rek lañuy ñuy teewee di fiy dégg lu bëri bëri bëri loo xam ne ay njàngat la ci képp koo xam ne ndaw nga nekk ci Sénégal te bu ko yokku kon comme ñu ñuy soññ ci xew yu mel nii pour ñu yokku benn ndaw amatul droit à l'erreur pour que nga defaraat sa toogaay bu baaxa baax bési moom Bamba bi ma dégg ñu wax ci création dëkk bu sell bii di Touba Mouride ak nuñ ko créer war nañ xam ne lii de du miracle mais luñ programmé woon te programmation boobu nga xam ne jóge na ci kaw ba daanu ci commune Nioro Alassane Tall war na yee képp koo xam ne doomi commune bi nga pour ngay aspirer ci lan le développement de notre chère commune loolu monsieur Faye maire de la commune de Nioro Alassane mu ngi leen ci woo di leen di wax ne Touba Mouride feebaru c'est la commune de Nioro Alassane Tall moo feebar ndax bu fekkee ne le poumon de l'économie de la commune moo am ay jafe-jafe mën nañ wax ne kon képp koo xam ne ruq la ci suñu commune bi am na ay jafe-jafe kon c'est la commune de Nioro Alassane Tall moo am ay jafe-jafe bu ñu waxee ci dëgg jafe-jafe yooyu naam wax nañ ko le président de la moom mi nga xam ne moom la fi yàlla teg mais chère autorité fi teew danaa leen waxaat ne yoon manqué na ci suñu commune de Touba murit kese de Toubacouta à Saloum Diané ay ati ngi noonu yoon boobu ñu ngi ko def latérite soxlañ nañ ñu bitimel suñu yoon boobu foofu nag ñu ngi koy ñaan monsieur l'honorable député di koy ñaan le président du conseil départemental di ko ñaan le sous-préfet mais di koy ñaan le parrain du jour aussi Matar ba nga xam ne ministre la ci ko suñu région bi doléance yooyu ñu ànd xàccandoo dóorandoo pour que suñu yoon bi ñu mën ñu ko biti mel mais aussi la route ila Touba Mouride biti mel leen ñu ko ni tu ilaa Touba amee noonu la ilaa Touba murit wala amee ndax sëñ Bamba moo sanc Touba sanc dëkk bu sell bii kon lépp lu ñu xëcc bu jëm fële war nañ koo xëcc mu jëm fii kon cher autorité taxawal leen ñu pour que ilaa Touba murit am de jagle à Touba murit la route est chaotique ñu ngi leen di ñaan ngeen taxawuñu ci ba ñu bitimel ñu ko mais ñu bitimel ñu aussi la route jagle Touba murit aussi en passant par kër Ndiayène monsieur Ndiaye mu nekk piste bu bees boo xam ne war na gis le jour ci suñu commune Nioro Alassane Tall bi mais buñ ñu ko defal latérite kese nañ ñu ko biti ndax bëgg nañoo répondre aux aspirations du Sénégal émergent ñun waa commune Nioro Alassane Tall mais ñu fa yem foofu aussi nañ ñu biti mel la route Sokone Ndramé Escale bu traverser toute la zone Djirjëngeli ba nga xam ne ci suñu commune la bokk chers autorités gis ngeen nu mu méttee ci suñu commune lii ce sont des pistes yoo xam ne mën nañ leen wax ne les pistes phares mais à l'intérieur de la commune ci biir commune bi yàlla xam na ne dëkk bi dëkk bi def fee am ay jafe-jafe ndax nawet bu jotee pour nga jot ci duuma bii c'est tout un problème kon chers autorités ñu ngi leen di ñaan ngeen taxawuñu ci danaa leen ci gunge ndaxte dama bokk ci biir mais dana leen di danaa doon bàyyi faal bu ma dangoo ngeen jiital ma man ma koy wax fépp foo xam ne bëgg ngeen ma ko fay waxee pare naa pour doon seeni Baay Faal pour que ëllëg buñ amee lu ñuy plaider pour commune Nioro ala Tall man monsieur fay ngeen gu yónni ma ma taxaw pour loolu mais dañ ne ab liir bu fecc ba mu neexee yaay yaate sa mbag mate yaay yooyu mooy yéen chers autorités du département de Foundiougne de la région de Fatick mais aussi de la commune de Nioro Alassane Tall bu loolu weesoo commune bi yemul ci feebari yoon commune bi mu ngi souffrir 61 village reconnus administrativement plus 10 amoo mën nañu wax ne onze villages ndax amoo bu ne ab borom dëkk fa nekk presque onze village ñu ne 5 postes de santé ñoo fi ne ñu ngi ci sixième bi ñu ne case de sante moom waxatuñ ko ndax dee nañ presque ñu ne hôpital yi amuñ ay garab ñu ne ambulance médicalisée sax amul ci biir commune bi. chers autorités loolu aussi ñu bàyyi ci xel ndax suñ commune soxla na ko comme yeneen communes yi nuñ ko soxlaa ñu ne aussi commune bi mu ngi joytu loolu doléance personnelle la monsieur le sous-préfet ak l'honorable député ak le président du conseil départemental xëy na le parrain mus Matar bu fi waroon ñëw am na bataaxal lum leen yónnee mais wax leen ne la commune de Nioro Alassane Tall a un besoin d'un stade municipal comme stade Massar Sène ba nga xam ne am na ko Fatick ñun suñ ndaw yi dañoo bëgg adoon ay Sadio Mané te amuñ fu ñuy foyee doléance boobu ñu ngi koy ñaan non seulement Matar Ba mais ñu ngi koy ñaan le président de la République waxoon naa ko ko mais na ngeen ko ko waxaat ndax mu xam ne suñu soxla la mais aussi di ñaan en dehors des postes de santé en dehors des cases de santé en dehors aussi ci garab yi nga xam ne ñoom ñoom lañ war a mën a fajoo mais ñu am fuñ koy def le frère Babacar Diop wax na ko léegi nee na dépôt fi lañ fi amoon te dépôt boobu presque tur rek la fi am kon jot na chers ICP yu fi teew ak képp koo xam ne mu ngi yëngu ci wàllum santé ngeen taxawu ndax 71 villages ñu ne pharmacie nekku fa doy na waar taxawu leen ñu pour que ñu mën a am pharmacie ci suñu commune Nioro Alassane Tall taxaw leen ñu tul suñ ndaw yi aussi am ay CM yu mot yu ñuy jàngee bëgg nañ lycée aussi ci suñu commune Nioro Alassane Tall kon lim yi bëri na comme le président waxoon na ne ñu tënk ko ci ab bataaxal yonee ko ko tënk naa lépp loo xam ne jafe-jafe la woon ci commune Nioro Alassane Tall mais xëy na labaliwaat ko la woon rek ci kanami suñu autorités yi teew ndax kenn ku ci ne dugal ko ci xelam li may am li may lancé mooy un message à la jeunesse de la commune de Nioro Alassane Tall xam naa ne ay jàmbaar ngeen xew bu am gis naa leen yéen a nekk ci organisation bi taxaw di fiy déglu mais dem leen di ñaan ngeen jëfee lu ngeen fiy déglu ndax kat ab murit jëf la xam te képp ku tom yoone murit da nga jëf te buñ jëfee suñ comité naat jërë ngeen jëf maa ngi leen di sant di leen di gërëm wasalaam. donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar au noo du président Moustapha Mbaye di nuyu nag euh, sëriñ bi di ko jottali nuyoo président Moustapha Mbaye loolu bu ma ko waxee du lu tumaranke ndax ku xam sëriñ bi fi jógee xam ki ko fi yónni xam ni mu mel ak président Moustapha mbay ñoom ñooy ay sëriñam kon ñi waxoon ci gannaaw ne bés bi li ci boole Moustapha mbay du président conseil départemental dong ndax dafa bokk ci bés bi ci zaahir waaye dafa bokk ci bés bi ci baatin waaye dafa bokk ci bés bi ci deret loolu maa ngi koy dëggal ndax du benn yoon rek laa ànd ak moom fi mu jël kàddu te feddaliwaat lii ngeen wax noonu monsieur le maire sortant Mamadou Niatal ñu ngi lay nuyu ak mbooleem responsable yi nga xamante ne ñu ngi ci biir arrondissement bu Toubacouta ñu ngi wax rek ne président Moustapha mbay mu ngi leen di jottali ak njégalam bés bi yàgg na ko teewee ci jëmmi boppam ànd ceeg man su boobaa man fee toog moom mooy toog fii waaye dafa am lu ko tënk loo xamante ne dëgg-dëgg fas yoo na yegg si fii waaye loolu moo ko téye mu yebal si ma boole ma ak délégation pour ma ñëw ànd ak monsieur le préfet ànd ak monsieur le maire ànd ak honorable ñu bokk ak yéen bés bi liñ ciy wax nag mooy ñun dañ ciy sant yàlla bu baax sant gi sëriñ bi wax na ko ci conférence bi ci liñ ci jot a fekkee ndax boo xoolee jotaay bi ni mu tëddee ni mu teeyee ni mu rafetee ak ni mu baree ay ndaw kon ku toogal nguur ku mel ni su préfet bu fi toogee xelam dina dal bu baax a baax ndax dina ko leer ne ñi nekk fii di ay ndaw yor seen doole dinañ ko jëfandikoo ci neneen lu dul dem di dajale ay nit wala di daje ci ay barab di toj di yàq di wax lu ko naka su noonu kon loolu ñun buñ ko amee dañ koy gërëmee sëriñ si nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk waar woowu di ko doxal bu baax a baax a baax a baax a baax ñu ngi leen di ziyaara sëriñ bi di leen jottali ziyaara ak nuyoo président Moustapha Mbaye du ñàkk a nuyu chef de village ndax wax dëgg yàlla dëkk bi ñu bëri wax nañ ko xol la ci ñoom baatoo ci mbirum koom-koom waaye xol la ci département de Foundiougne ci mbirum koom-koom waaye xolit la ci région de Fatick ci mbirum koom-koom te loolu nag noté nañ bu baax li nga xamante ne monsieur le maire wax na ko ak waa dëkk bi muy ay jafe-jafe yoo xamante ne du ñoom dong ñoo koy dund ndax sous-préfet bii dafa am fu mu jóge ñëw fii dafa am fu mu jaar kon loolu ñu tënk ne jafe-jafe yoon la xam na ko honorable xam na ko dund nañ ko kon dafa mel ni li ñu wax yegg na ci nopp bi nga xamante ne dund na ko ba pare te xam na ko kon monsieur le préfet honorable loolu it dinañ ko taxaw bu baax lépp luñ ci man lu ci état man dina ko def gunge ci monsieur le maire dinañ nuyu it imam nga xamante ne bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy yar njaboot gi di leen jiite di leen fàttali li nga xamante ne moom mooy seen moom mooy wax suñu borom bu loolu amee nag bu ñu gërëmee mbooloo mi jotali nuyoo président Moustapha mbay ñëpp dañuy wax rek ne bés bii bés bu màgg la ci département bu Foundiougne bés bii bés bu rëy la ci département bu Foundiougne bés bii bés bu taaru la tey taaral département bu Foundiougne li ko waral nag mooy dañuy toppaat dong ci li nga xamante ne kilifa yi wax nañ ko fii te monsieur le maire baamtuwaat ko mooy suñu sëriñ mu màgg moomu nga xamante ne moo sànc dëkk bu màgg boobu nga xamante ne mooy lumière phare ci Sénégal mooy moo joxe ndigal ñu sanc dëkk bii kon loolu doy na yaakaar dëkk bu mel loolu nag bu nekkee ci sa département nga jiite département bi lépp lu xew ci dëkk boobu ci wàllu diine ak leneen loo xamante ne département bi daf ci war dugal loxoom dinañ ci def suñu kéemte lay kattan lii fi ñëw nag ñu xeeb ko lool tey ñaan ngeen ñaanal ñi fi nekk te yàlla may leen ak ndomb tànk yàlla yeggali seen mandat ci niñ ko bëggee waaye ndam li nga xamante ne moom lañ ci séentu itam ngeen ñaan yàlla mu may leen ndam loolu ndax monsieur le maire kat bu amee ndam dégg yaakaar naa ne commune Nioro Alassane ñëpp ñoo am ndam honorable député bu amee ndam département fu ñu ñëpp am ndam kaddu yu mujj yu Moustapha mbay nag mooy gërëm sëriñ si nee na jotaay yii buñ ci tolloo nañu gërëm kilifa diine yi nga xamante ñoo ŋànk diine bi ci ñaan yi nga xamante ne ñu ngi koy sax di ko ñaanal askan wi waaye ci ñaan yi nga xamante ni ñu ngi koy sax di ko ñaanal autorité yi bi ñuy waaj campagne électorale képp kuy kilifa diine taal nañ suñu oto dem ci yow ñaan yàlla wax la nga ñaanal askan wi yàlla élection yi campagne yi nañ ko def ci jàmm képp ku gën ci askan wi ñu ngi ñaan yàlla ngeen ñaan yàlla tanal askan wi ki nga xamante ni moom moo gën ci moom te ñaan yooyu nee na gis na ko ñaan ngeen ko dem nañu ci élection ci jàmm xuloo amut werante amut ñëpp nekk ay doomu ndey ak doomu baay loolu seen ñaan moo ñu ko may kon bu tolloo ci jamono jii nga xamante ni ñu ngi soog a falu dina leen jottali ngërmaande tey wax ngeen dolli ñaan yooyu di leen gërëm di leen sant di jéggalu ci kàddu yi kàddu ndaw la mën na mat waaye lu ci mënti xew rek ngeen xam ne ki ñu yónni moom yéeneem mooy wax ji na rafet na jub bu melul noonu ngeen xam ne jaam bi ñu yónni moom moom matul ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant asalaamaaleykum wa rahmatullah borom dëkk Touba Mouride maa ngi lay nuyu di jottali sama nuyoo ci borom dëkk commune Nioro ak santaali du nuyu imaam yi du nuyu ulema yi du nuyu góor du nuyu mag du nuyu ndaw ak góor jigéen monsieur le sous-préfet de l'arrondissement Toubacouta ñu ngi lay nuyu di la yóbbante suñu nuyoo ci préfet département bu Foundiougne di la yóbbante suñu nuyoo ci gouverneur de la région de Fatick di la yóbbante suñu nuyoo ci ministre de l'intérieur waaye di la yóbbante suñu nuyoo ci son excellence monsieur le président Macky Sall ñuy wax sëñ ñi fi teew yépp ngeen ñaanal son excellence président Macky Sall parce que réew jàmm moo koy lal te liy xew ni tey ci jàmm la tegu ay atan fi ci ginnaaw kenn deful ndaje ngir feebar ak jàngoro kon ñuy wax kaamil yi ñu fi jàng yal na ci borom réew mi jot mu nekk jàmm ci réew mi ñu xool région yi ñu dendal tamit ak safaan yi fiy dégg yal nañ ci yàlla mucc ci ëmpalooñ ji ñuy yóbban tamit suñu nuyoo ci xalif général des murit di ko dolli suñu ziyaare di ko jébbalaat di ko yeesalaat suñu taalibe ci département bi yëpp may nuyu sama rak sama frère Mamadou Niantal di nuyu sama ba Cissé di responsable APR di nuyu monsieur le maire du Faye ci dalal bi nga ñu dalal may kontaan trop ci kàddu yi nga fi jël ñun day ay député lañ doon tamit ay maire maire nag boo ko doonee dafa am état bi lu la sant muy compétence transférée muy santé di éducation di jeunesse di lépp lycée soo bindee jox préfet ñun yóbbu la ba ci ministre bi gunge la nga am ko Toubacouta 52 village la am nañu ñeenti lycée Toubacouta 52 lañ am na ñu CM am nañ 10 postes de santé loolu sa compétence la yow la ku laaj nag bañ jox la na nga dem wuti te andi mbir mi yombul de da nga jaay say nelaw da nga dox waaye ñun daañu la gunge. parce que yàggul lool bi ñu la installé yóbbu naa la ba pale nga jàkkaloo président la République juróom-ñaari meer ci département bi président ne leen li ngeen mënul ci seen communes yi bind leen ngeen jox ko Pape Ndianko mu àndil ma ko ma jàpp leen ci yaakaar naa loolu programme d'urgence la keroog ba ñu inauguré Ndiaye musa Ndiaye ambulance bi nga jooy di Niantal bi toog jooy na ko jàmbatu ko. bañ wax ko ne ko ministre bi joxe kàddoom ne dina la ko ci jàppale pour mu def ko ci yaakaar naa boo jegee ñaantaal ñun dañ la jàppale ba promesse boobu ministre bi waxoon Mansour Faye mën a wax pour ñu def parce que diggé woon na ko fi te suñ kanam la woon te su préfet ngi nii toog donc dama yaakaar ne ñun suñu falee dañu war a dem wuuti ambulance Kër Saalum Diané man maa ko ñaan ministre de la santé andi ko Kër Saalum Diané loolu nag mooy rôle député man nag ku ma yónni ma yóbbu sa yónni ku ma fi romb tamit ma toog seetaan la réew bi nag amul dara lu ma ci laaj parce que ci la bokk ci régime bi laa bokk te xam ko lool xam ni muy fonctionné brigade sapeur pompier bi ngeen gis Toubacouta maa ko tabax ci xaalisu commune bi agida xam chef baa ngi toog marché Toubacouta maa tabax ci xaalisu commune bi état bi mu ngi dimbale maire yi na maire def xaalis bi ci commune yi état baa ngi joxe fonds de concours di jox ay fonds de dotation di gunge maire yi ci li ñuy liggéey na maire yi jàppale askan bi kon loolu laal la bëgg a ñaax sama rakk nga ñoo bokk maa yow ñoo bokk réew bi ñun nag ay député département lañ xëy na suñu mandat ay weer moo ci des mais lépp lu nit yëppante bind ko muy leet muy ci président ak Sall ak ministre bu mu mën a doon ñu la ko yóbbul ku ñu fi romb nag ah da ñoo noppal parce que ñun député yi ñoo ñu fal askan bi ñoo ñu fal pour ñu war a jàllale seen message waa ki la war a yónni bu la waxul dara noppal na la. te man ku ma yónni ma wax lu ma waay yóbbante ma wax yaakaar naa li xew ñoombaatu ku taxaw assemblée xam ne maa ngi koy wax muy yoon bi muy gerte gi muy jiw bi muy engrais bi muy transport parce que ni ngeen koy dundee laa koy dundee parce que fii laa ne juróomi at député mosuma dugg avion dem bitim réew maa ngi Sénégal te yaakaar naa xëy na ñaari at yi lañ gisantewul ngir Covid bi mais amul benn daje buy am ñoombaatu te teewuma ci parce que ci réew mi laa dëkk te su ma nekkatu li ma doon fii lay dëkk. kon maa ngi sant président conseil départemental di sant waa Touba Mouride yëpp yoon bi dégg naa jafe-jafeem mais président dafa am ay programme urgence xool ngeen pont fu ñun bi le 26 la fi war a ñëw pour inaugurer ko ñu ngi koy ñaan diggante Djilor ak Sokone pour mu bitime ko Nioro al Santal Kër Saalum Diané ba ba nga yëg Toubacouta raaraan boobu 98 la PS moo ko fi defoon boo xoolee Missirah Toubacouta 12 kilomètres la. quatre-vingt-neuf lañ ko fi def mais dafa ay programme d'urgence ku ne xam ne ni courant ku ne xam ne ndox ni muy yokkoo ci dëkk bi programme bu bees bi am nga ci fanweeri dëkk ak juróom-ñett Kër Saalum Diané am na ci fanweeri dëkk ak juróom-benn son excellence président Macky Sall boo wax balaa deux mille vingt cinq bugg na dëkk bu ne am courant loolu programme état bi la te dañ koo xam parce que assemblée lañ nekk ñun ñooy contrôler action gouvernement bi lépp luy génn ci état bi ci projet xam nañu. kon rassuré wu leen na seen xel dal courant bi dana yegg ci dëkk yépp parce que nag courant dafa seer maire mënu ko état rek moo ko mën te état baa ngi ñu siy gunge ndox mi tamit la même sos li nga wax tey ci Simon Diène dégg nañ ko Ndiaye Moussa Ndiaye mu ngi fii yaakaar naa tey ñu ngi programme forage boobu pour mu dem Foundiougne mais nañu bind keroog ba nga toogee ak président dem ko ne mënuma d'accord ñu gas ay forage muy alimenter ay dëkk te fañ ko gas du yoon. ndox warul romb dëkk courant warul yomb dëkk mais yow maire bi sa bopp yaay am fulla am fayda ñëw gis préfet bind jox préfet chaque fin du mois mu def rapport politique am kon autorité yi nañ xam ne ñii dañ fi nekk pour liggéeyal ñu am nga CADL bu ne sa wet mun a nekk sa conseil technique ñun ñëw la jiitu ci mbir mi ñu ngi ci suñ troisième mandat ku ñu jox mairie ñu jàngal ko nit ñi kon dee leen laaj maa ngi sant nag sama mag bu baax El jànq ba Cissé di gërëm ñëpp di baalu ñëpp ak di ñaan yàlla réew mi yàlla na yàlla def jàmm yal na yàlla defal nawetu jàmm yàlla na yàlla may wér te kàttanal ñu jërë ngeen jëf wasalaam moo fi njëkk mille neuf cent soixante-douze si lañ def yoon bi dara baaxut boobu ba léegi bon te bii mooy dundal suñu commune bi bon normalement ba la ñu tudd beneen yoon boobu lañ war a tudd wasalaam yaakaar naa honorable dégg na dégg na wax ji waaw loolu am na solo trop merci kon monsieur le préfet euh, bu ko defee ñu jox la kàddu gi su paree ñu jox sëñ bi mu ñaan jërëjëf bisimilah monsieur le préfet. auzu billahi samil alim min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadu rasulillah sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, nuyu islam boobu la ñuy yëkkati euh, ci turu monsieur président de la république son excellence Macky ci turu l' ensemble du gouvernement ci turu madame le gouverneur de la région de Fatick ci turu monsieur le préfet du département de Foundiougne ak ci turu délégation biñ filim léegi ñu jëmmal fi ñooñu ma tudd léegi te defe naa ni ci délégation boobu mën nañ cee dolli monsieur Sagnane mi toog ndaxte yàlla dafa dogal mu nekk le président du collectif des directeur d'école de Nioro Al Santal ñuy jagleel sunu nuyoo euh, Serigne Touba sëriñ Mountakha Bachir radiallahu taala anhu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te di nuyu El Hadj Thierno Bousso ak njabootu Serigne Ali Dieye Bousso nuyu imam Touba Mouride nuyu sëñ Cheikh mi fi toog nuyu kilifa diine yi fi toog nuyu ahimma yi fi toog nuyu chef de village yi fi teew nuyu képp ku fi teew ci turam ak santam di sant yàlla bu baax a baax biñ nu mayee ñu mën a teewaat màggalu Serigne Ali Dieye Bousso bu édition deux mille vingt deux ndaxte yàgg nañ fi di fi teewal nguur gi di fi yëkkati kàddu président de la république mais ci jamono yi weesu euh, jafe-jafe amoon na naam jóge gu fi waa ñu sant sunu borom lool bi mu ko wàññee ba mu mu ñu mën a euh, wax dëgg yàlla taxawal jotaay bu taaru bi ni mel loolu nag bu ñu santee sunu borom dinañu sant sunu kilifa diine yi. te cant googu nag dinañ ci jagleel sëñ Mountakha Bassir cant bu wér ndaxte bi mbas mi amee ñëpp gis nañu taxawaay sëñ Mountakha Bassir ndaxte yàlla dafa dogal euh, ci wàllu jàppale état bi ci fexe ba askan wi euh, bañ a am jafe-jafe ci feebar boobu mu jël jël lu takku jox ko monsieur le président la république nekk loolu mooy ndimbalam muy ndimbalu yoonu murit ci wax dëgg yàlla disposition yooyu ñu waroon jël pour wàññi coono askan wi euh, waaye kër docteur également disposition yi ñu jël motuwaay yi ñu santaane woon ci wàllu mesure barrière gis nañ ne sëñ bi jàpp na ci lool ba yàlla may ñu feebar bi naam wër na àddina naam jur na jafe-jafe ci Sénégal waaye wax dëgg yàlla sant nañu yàlla bu baax a baax ndaxte wàññeeku na lool ba jotaay yu mel nañu ñu war ko fee mën a def def ko feneen ak feneen ak feneen ndaxte bu ñu fi bàyyeekoo léegi war nañoo dem Misira également war fa fekkee jotaay bi ni mel euh, màggalu Touba Mouride nag buñ ci ñëwee wax dëgg yàlla dañuy sant askanu Touba Mouride ci seeni taxawaay defe naa ne njàngale sëñ bi ñoo ko fiy doxal ndaxte sëñ bi li mu santaane mooy liggéey ak jaamu yàlla te loolu yépp nag njàng lal ko te ci loolu lañu xam askanu Touba Mouride wax ngeen fi dëkk bi cosaanoo wax ngeen mag yi ko sanc ak ci anam yañ ko sàncee loolu ñi leen wuutu di ko doxal ba tey jii yëf yi ñëw ci loxo El Hadj Thierno Bousso ak njabootam ñuy gën di wéyal loolu rek tegguwuñu seen tànk ci yoon wi mag yi xàlloon te sëñ bi santaane woon ko donc loolu wax dëggal dañ koy sant yàlla ñaan yàlla mu wéy euh, jotaayu islaam nag euh, li tax mu am solo mooy jotaayu fàttali la fekk nañu léegi sëñ Gana Messere euh, muy ku ñu naw muy ku ñu ràññee ci wax dëgg yàlla réewu Sénégal ci yoonu murit ndaxte euh, jàngale dong mooy yitteem te wane liggéey sëñ bi dong mooy daanaka léppam foo ko déglu rek gën a bëgg yoonu murit gën a fonk sa bopp gën a yëg sa bopp ndaxte mag ñi lu ñu liggéey loolu ñun suñu fierté la xam nañu jamono yi ñu koy def yombul woon jamono yi ñu koy def jafe woon na lool boobu nit ki xàmmee boppam ràññee boppam ba wax dëgg yàlla mën a am yenn taxawaay yi loolu bi ko mag ñi di def yombul woon donc baax na ñu am ñoo xamante nit ñi dañuy gestu loolu bu jotaay yi ni mel amee ndaw yi nga xam ne fekke woon loolu ñu koy nettali ndaw ñi di ko dégg ndaxte li ñuy wax ci xol yi lay dugg ba tax na ku nekk da ngay defaraat sa toogaay defe naa ne monsieur la commune de Nioro Alassane Tall wax na ko réew ay ndaw a ko yor réew yaakaaram ay ndaw lañ donc éducation ndaw ñi ak formation ndaw ñi ku nekk da cee war a def kémt lay kàttanam ndaxte euh, mag ñi euh, seen njàngale bi bu ñu fexee ba lawal ko ci ndaw ñi rek jàpp ni Sénégal ndam rek lay am te ñu sant yàlla nag ndaxte bi ñu génnee ci élection yàggul muy les élections territoriales yàlla defal ñu ci sutura loolu yépp nag yàlla ak seeni ñaan Euh, ñu koy sante sunu borom bu baax a baax mais di sant kilifa diine yi yàlla dogal te loolu defe naa ne loolu woy la ci Sénégal loolu aussi moom la réew yëpp nawee Sénégal mooy la démocratie de notre pays dañuy xëy dimanche dama wote ji sa ëllëg sa ñëpp dem liggéey te defe naa ne loolu encore moo xew ci élection locale yi ba yàlla ki ñi yàlla dogal ñu wara a jiite askan wi sunu borom tabb leen ndaxte yàlla noppi na Euh, dans la commune de Nioro Alassane Tall yàlla dogal na monsieur Mamadou Faye la ñu fal maire ñu koy ñaanal sunu borom oyofal ko yen bi moom ak ñim ci àndal ñaanal ko également vraiment naal yi mu am pour commune bi ndaxte euh, wax dëgg yàlla son ambition est grande li mu bëgg rëy na lool fa mu bëgg jemee ñooro rëy na lool ndaxte nag yaakaar la askan wi am ci moom yaakaar googu nag defe naa ne du ci wéet honorable député wax na ko léegi ñëpp koy gunge euh, gunge gi mooy moom maire dina ko gunge conseil départemental dina ko gunge mais administration également dina ko gunge ndax naka jëkk noonu rek la mën a demee ndaxte commune démembrement de l'état la dafa nekk kuréel ci biir état donc mu am lu mu mën mu am lu ko état di jàppale loolu nag noonu la mës a doxee je pense que ma nuyu euh, monsieur le maire sortant monsieur Mamadou Tall euh, remercier ko également moom aussi si jéego ya mu def ci jamono yu ngi ko dénkee commune bi def na lam ca mën l' administration c' est une fokk sa ki nga jiitu ki la jiitu fa mu bàyyee nga tàmbale foofu rek wéyal ah jàpp naa ni nag am na lu des lu bëri ndaxte soxla yi dañoo yaatu bëri lool waaye aussi nañu jàpp ni am na lu ñu def am na lu ñu def mooy am na ku ko wax léegi ci wàllu ndox defe naa ni commune Nioro Alassane Tall maratul maratul mooy Euh, defe naa ni forage yi même bu fekkee ni doyuñu euh, en tout cas lañ fa defagum tàkkun ndaxte Kimintang am na forage Ndiayen Moussa Ndiaye am na forage mu fekk fi forage Simon Diène fekk fi forage Kër Maama Lamine fekk fi forage Nioro Alsantal te forage yooyu yëpp ma lim nii yooyu yëpp commune Nioro Alsantal kese la ñuy jox ndox yooyu joxuñu feneen ndox astafurlah peut-être am na yenn dëkk ci kër sàmba Gueye yuy jëlee ndox ci euh, forage bu Simon Diène euh, yàlla dogal également sunu borom baaxee commune Nioro Alassane Tall bu baax boo xamante ne bii wax dëgg la war nañ ko fee mën a jël yóbbu ko feneen pour mën a nàndal doomi Sénégal loolu lañ def Simon Diène def fa ay puits pour mën a jox ndox les îles di Saloum mooy Bettenty Bosinkan Djinak Bara Djinak Diatako jaata ko pas joxaale ci yenn dëkk yi ci Toubacouta loolu nag Simon Diène la jógee fan yi également ñoo ngi tàmbali benn forage Ndiaye Moussa Ndiaye war koo mën a yóbbu fu njuñ loolu yëpp nag ñu sante ko suñu borom moo ko def fii maintenant ndox yi mën na am am na yenn dëkk yu am ndox yu neexut te mu doon jógee ci forage yi nekk dans la commune de Nioro Alassane Tall loolu aussi lu ñu war a mën a wax dëgg yàlla faj la ndaxte fu ñu war a jëlee ndox soreetul forage yaa ngi fii war nañu mën a alimenter loolu et je sais que Touba yàgg na sàkku ñu wax dëgg yàlla ñu raccorder ko ci yooyu forage dafa daan avec euh, la nouvelle équipe municipale dañuy dox ci jéego yooyu fexe ba forage Ndiaye Moussa Ndiaye mën a alimenter peut-être euh, la localité de Touba Mouride et c'est bien une possi c'est possibilité donc li lañ ko def je pense que Kima Kimintang aussi wasaare gu ñu ndox mi mais loolu yëpp également dinañ ci def ak ay jéego ba dëkk yooyu mën a am ndox incha allah ci wàllu courant ci wàllu courant defe naa ni am na également ay jéego. mais li may xamal askan wi rek mooy ci fan yi weesu rek jot nañu ndigal bu bàyyeekoo ci préfet mu yónnee ñu list ay dëkk yi ñu war a électrifier dans le cadre du MCA MCA mooy programme américain boo xamante ne bii dafa jël ay dëkk yu bëri ci biir arrondissement Toubacouta liste ba ñu jotoon quatre-vingt-huit dix moo ci ne maanaam daanaka li bu manqué téeméeri dëkk ñaari téeméeri ñaari dëkk kese la te loolu nag commune Nioro Alassane Tall am ci trente-sept villages. yoo xam ne dañ leen a war a électrifier lu taxoon ñu yónnee ñu liste bi c'est pour que ñu yónnee ko maire ñu xool bu fekkee ci diggante bi ci dëkk yooyu am na yoo xam ne am jot nañu am courant su boobaa ñu mën leen a génne mën cee dolli yeneen peut yi ci nekkul parce que du boobu programme kese lañu am pour électrifier ay village donc defe naa ni loolu daal bu àggee liy des ci dëkk yu amul euh, électricité mën na am du bëri te loolu aussi ci fan yu néew incha allahu rabbi dinañ ko tàmbali ci wàllu réseau euh, réseau de télécommunication wax ngeen ko léegi démb rek ci waxtu wi la ñu préfet yónnee benn message ne nañ ko recenser dëkk yi nga xamante ni dañu am problème d'accès au réseau téléphonique loolu bi ñu ko yónnee maire maire tontu bi mu ñu defal mooy à part Nioro Alsantar ak Kër amat Sène dëkk yi ci des yëpp dañu am jafe-jafe boobu donc loolu aussi yeggee nañ ko préfet ndaxte loolu gouverneur moo ko laajoon te waa Sonatel ñoo ko laajoon ñu jàppane ci fan yu néew donc dëkk yooyu aussi dinañu ñëw pour xool wax diggal nu ñuy fexe ba wàll woowu yemb dëkk yi mën a di communiquer euh, avec le reste du monde sans aucune difficulté euh, ci wàllu santé également je que am na am na ay jéego yu ñu def waaye nag aussi jàpp nañ ni de 61 villages et 10 hameaux loolu lu ñu war a mën a dolli la donc dolli googu également comme ni ko euh, honorable député waxee léegi dan ci ànd ak maire surtout également pour l'ambulance médicalisée parce que defe naa ne de toutes les communes de l'arrondissement de Toubacouta la commune de Toubacouta ak la commune de Nioro ak Santal kese ñoo ci amul ambulance médicalisée loolu nag aussi le ministre Mansour fay bi mu yoree développement euh, en tout cas bi mu yoree développement communautaire bi mu inauguré honorable wax na ko dama koy fàttali rek bi mu inauguré Fora Ndiaye Moussa Ndiaye en présence du maire sortant jëloon na engagement ne Puma dina jox Nioro ak Santal une ambulance médicalisée donc loolu dinañ ko dox wax ko ba incha allah rabi yàlla indi ambulance médicalisée boobu yeneen poste de santé yi aussi wax dëgg yàlla incha allah rabi dinañ ci euh, def ay jéego ci poñ boobu aussi may fàttali askan wi rek ci fan yu néew dinañu renouveler le comité de développement sanitaire ndaxte seen mandat dafa jeex élection yi moo taxoon jubluñ ci woon mais en rapport avec les ICP et le médecin chef du district dinañu wër poste de santé yi kuréel yooyu nga xam ne ñooy teewal askan wi ci poste yi ñu leen. loolu nag euh, am na ci ndaje le mardi def réunion ak ñëpp waxtaan ak ñëpp ba ñëpp yëgandoo ko képp ku mu soxal nga xam ko su boobaa nag ñu door a wër post par poste di renouveler le comité de développement sanitaire yooyu euh, mébét bi fi am solo te wax dëgg yàlla mos ñu koo négliger mooy yoon yi sëñ bi wax na léegi yoonu jagle Touba Murit ba naam moo gën a moo gën a yàgg wax nga dëgg moo tax mu bëgg ñu def ko priorité n'est-ce donc loolu incha allahu rabbi euh, priorité la loolu aussi monsieur le maire mii toog barke démb la ñu dem Fatick di fa di waxtaanee li jëm ci tarifu traversé pont Foundiougne parce que dañu tarif yi dañoo cher gouverneur woote ndaje ñu ànd ak ñëpp ñu ne nañu waxtaanee ñu xool lan la ñu war a mën a dem ba nga xamante ni bi dina oyof ci askan wi ñu proposé loolu keroog bi mu waxee nee na pont bi de baax na wax dina dina ñu jural njëriñ ñun ñëpp rafetlu nañ ko sant nañ ci président de la république waaye nag dañoo bëgg également ñu geex suñu xam ne ñun naam bu ñëwee ci pont bi dañ lépp yomb waaye nag balaa ñu egg si pont bi dañuy bëri ay jafe-jafe Ba mi fekkee na ko donc loolu te waa AGEROUTE aussi wax fa ñoom ñoo ko waxal seen bopp ki yor la zone centre monsieur Diouf nee na am nañu programme de désenclavement des localités de du département de Foundiougne nee na programme boobu nag ay bitumage la yenn yoon yi dañu leen di goudronné dañ koy ñuulal nee nag fu mu toll nii du waxagum ban ak ban la mais day bàyyi ba loolu yemb mais ci fan yu néew dañu indi liste boobu su boobaa dañ ko eggee maire maire maire eggee ko askan wi nee na fépp fu ñu war a def goudron dañ ko fa def fépp fu ñu war a def piste également dinañ ko def et je pense que am na beneen piste bu bees bu ñu tàmbali mooy la boucle euh, du comment on la encore voilà très bien donc boucle boucle boobu PUDC moo koy defar PUDC déjà tàmbali woon nañu études yi depuis ci nawet bi mais nawet bi taxoon mu xaw xaare tuuti bokkul boobu léegi fii lay duggee presque dina génne ji kër sàmba Gueye donc daanaka commune yu bëri dina leen loolu piste la mais encore mais goudron yi incha allahu rabbi am nañu yaakaar gox yooyu ñu wax en tout cas li bàyyeekoo jagle fii toujours ñun si suñuy bind dañ daan nañ ko goudronné n'est-ce pas dañ naan na jógee jagle jaar Touba Mouride jëm ba Nioro Alassane Tall mais dañ naan également Toubacouta ba Kër Saalum Diané nañ ko goudronné lu bàyyee ko Sirman dem ba Baria nañ ko goudronné li jógee Toubacouta dem ba euh, ba Missira nañ ko goudronné donc loolu yëpp ay mébét la loolu yëpp wax dëgg yàlla ay bëgg-bëgg la autorité locale yi ngeen fal ànd ci ak les élus nationaux ànd ci ak les autorités administratives dinañ ci dox dinañ ci wax te am nañu yaakaar yàlla dina ci def ab ngéneel donc euh, ñu xam ne rek en tout cas muy administration bi muy les élus ñun ñëpp bu ñu sañoon bu ñëwee si jotaay yi ni mel xibaar yu neex rek lañ leen di indil ñun leen nangam li sotti na nangam li sotti na mais dara xëyul sotti nag lu ci nekk rek wax dëgg yàlla ay jéegu la yu ñuy teg encore tegaat ci yeneen ba loolu yëpp mën a yemb def naa extension électrique bu Touba Mouride dégg nañ ko am na lu ci tàmbali woon mën na am parce que PUDC déjà am na lu mu si jotoon a def mën naa matul euh, borom dëkk wax na également euh, wax dëgg yàlla même yenn amoo yi amaguñ ci donc loolu yëpp encore une fois avec l'équipe municipale dinañ ko dox wax ko ba loolu yëpp yem di ñaan rek ngeen dolli ñaan euh, monsieur le président la république ndaxte jotaay yu ni mel jotaayu jotaayu ñaan la ñu koy sàkku ci mbooloo mi di ko sàkku ci kilifa diine yàlla motal mébét yi yàlla dëgëral président de la république en tout cas yéene ya am muy fii di feneen yàlla jàppale ko ci loolu euh, ñaan gi également vraiment ñu ñu ñu lawal ko ci ñëpp rek euh, ku ci nekk rek mission bañ la teg yan bala askan wi teg sunu borom oyofal ko ba boo doxee jéego yooyu yàlla defal la ci ndam ndaxte ñun ñëpp sunu ndam mooy lépp loo xamante ni rek askan wi eggee nañu ko ñu fexe ba loolu sombal dal mooy seeni ñaan donc ñu sàkku ñaan rek yàlla def jàmm ci réew mi yàlla def jàmm ci àddina si yàlla def jàmm ci dëkk bi te dëkk bi xam ne dëkk bu ñaan la dëkk bi moom ca kaw ca kanam rek la jëm loolu nag autorités yi bàyyi ci xel gën a organiser dëkk bi gën a vraiment defar dëkk bi ba nga xam ne bi biñ ci bëgg ñu am ko ci ndaxte wax nañ ko c'est le poumon économique de la de la commune mais également c'est le poumon économique véritablement de l'arrondissement de toute la zone donc loolu ku nekk rek a nga si wàll ku nekk am nga si jéego lii la ñu ci kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan yàlla ñu teew ko déwén yu bëri ñaan yàlla sëñ euh, El Hadj Thierno bu sa yàlla yàggal ko suñu kanam suñu kilifa dina yàlla yàggaleen seen seen suñu kanam sëñ Mountakha Bachir yàlla yàggal ko suñu kanam te naal yi mu naal te mu bokk ci wax dëgg yàlla jëlee ndox euh, Lac de Guiers indi ko Touba suñu borom matal loolu ñun ñëpp ñu fekkee ko tettal ko salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon bu ko defee dañuy jox kàddu gi euh, sëriñ Modou Mbacke mu ñaan balaa timis incha allah sëriñ baa ngi ne assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi fi teew yëpp ak bokki taalibe yi kenn ku ne mi lay nuyu ci ak ci sant di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muhammadul Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naal yi muy naal liggéeyal Cheikhul Xadim sëriñ suñu borom mu yokk fanam guddal yaramam wéral yaramam dolli kàttanam ba mu eggale ko ci coobeeram te ñu ànd kook moom ak bokki taalibe yépp ginnaaw bi ba loolu jàlle ñoo ngi nuyu boroom dëkk ak imaam di leen ñaanal bu baax suñu boroom guddal seen fan ak kàttal na leen ba li ñuy yéene ci dëkk bi ñu yeggale ko seen coobare ñu ngi sant bu baax a baax a baax bokk yi fi teew yépp góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp ñu ngi leen sant te di leen gërëm di sant autorité yi nga xam na teew nañu fi di rafetlu seen teewaay lool am na solo lool ñu ngi leen ñaanal yàlla bu baax a baax kenn ku ne si ñom lii sa kàttan yàlla na ko yàlla yeggalil te téye ko bu baax a baax ci barkab Cheikhul Xadim jataay bi nag jataayu sant la akuk ñaan lépp lu ñu fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu te yàlla denc ko fu yàq yeggul ci barkeb Cheikhul Khadim bis bi nag sëriñ Fàllu Mbàkke moom sëriñ Abdul Akim moo ko waroon a teewee waaye yàlla moo dogal xat-xati jamono ak yittey jamono ak gàllankoori jamono moo ko jàpp ba mën koo teewee wante yéeneem ak xolam ak sañam bu sañoon mu teewee bis bi wante loolu la yàlla dogal tey moo tax mu yebal ko moom tey mu ànd ak waa këram yi ñu teewal ko fi kon ñu xamee ko noonu bu baax a baax sëriñ bi daal nee na amoon na yéene teew lool lool te loolu la yàlla dogal ñu xamee ko noon bu baax a baax ñoo ngi sant mag yi dëkk bi yépp ak tutànk yeeg nga xam na ñoo taxaw yi ak daayira yi fi dajee yépp sëriñ bi nee na mu ngi leen sant te di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla lépp lu ñu bëgg ci àdduna yàlla na leen ko yàlla defal yàlla na leen yàlla sàmm yàlla aar leen yàlla barke leen ci barkeb Cheikhul Khadim dépp taxawaay bu ñu bëgg ci dëkk bi rek yàlla na ko yàlla yombal ci barkeb Cheikhul Khadim sëriñ bi daal nee na sant na ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw sant na bu baax a baax a baax di ñaanal képp koo xam ne indi nga fi aajo aajo bu mënul doon yàlla na ko yàlla saafara bu dee ab tawat ak tawat bu mën a doon yàlla na ko yàlla teggi su baram jàppandal xéewal ci barkeb Cheikhul Khadim sant neen ñëpp ñëpp gërëm neen ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu amin